waaw dañ koy sant yàlla baax ndax euh, amoon nañu ko bëggoon a fekkee te fekkee ñu ko ñu ngi ñaan yàlla yàlla xaarale àjjana aussi ñu tëdd ci hôpital yi te amuñu ñu ko aussi yàlla yëkkati leen ñi caabi féete ginnaaw aussi tamit da bëggoon ko fekkee tamit yàlla génne fi ñu jóge sant yàlla mënta weesu nga fekkee ko nga nekk ci jàmm ndax yoonu Sëñ yoonu ndam la yoonu yokkute la yoonu àjjana la yoonu lislaam la lu weesuwu loolu sama ndey si sama yoonu suñu tubaar ko ma ñor du leneen nag lu ma am mun naa ko bokk jaamu yàlla